فضل وعافنا من كل بلاء الدنيا kon nag lu koy jariñ mooy yërmande yàlla ak njëggal yonent bi moo ko wax muy bésug màggal di leen sant nag di sant jullit yépp ci li nga xam ni borom bés bi moo ko woote comme ni ko sëriñ bu Sara Samb waxee démb ni sëriñ bi bu amee lenn loo xam ni mas na koo ñaan ku dul yàlla mooy bésam bii nga xam ni yàlla da ko ko jox muy bésu boppam bokk ci calendrier musulman te dootu ci deñ mukk ba ilaa yow ma mu ni ñëw leen ngeen santale ma ci yàlla kon mu ñaan ko mbokk jullitam yépp mbokk jullit yépp it nag dajaloo ñëw di ko santale yàlla kon boo leen ñëwee ci barab bi nga xam ni ab barabam la moo moo ko moo ko moom ak barab yu bari yu mel nii ci réew mi ak ci bitim réew ku ci ne di ci woo say wëlëre say am di jàmm ak say mbokk ak say dëkkaale say dëkkandoo yéen ngeen ñëw fii teewe bés bi te du tey ngeen ko masa teewe ndax ñu baree ngi fi ñëw dañuy topp tànki wéyjur yi ba tey jii ñu ñëw doon kilifa ci jotaay bi am ñu jóge fu sori ñuy ay wëllëre di yu baax ma di leen nuyu di leen sant muy sama mag jële di sama wëllëre ñu koy wax alaaji Mamadou Jàmbari jële fële ca ginnaaw tàmba te ñépp miin ko ci jotaay bi at mu ne mu ñëw di ànd ak ñun di ñu ko wéttale at ñi nga xam ne man ak ñoom benn lañu waa àndulaay yi daanaka ñoom it kër gi seen kër la ndax ki ko sanc mooy seen lépp mooy magi ñii di bàjje ñi ni ci des di seeni maam nga xam ni Eh, fi lañ ma fekk waaye moo leen fi indi di beral loxo waa Ñomre waa kër sëñ Moor Taala Caam nga xam ni kaamir bi moo ko sos bi fii ci kër gi ak ba ca Ndakaaru ndax Ndakaaru tamit lu mel nii dinañ ko fi def ajjuma ju ne bala ñuy julli juma dinañ ko fi def te moo ko fa saxal te mi ngi bëgg am lu ëpp ñaar fukki at wala fanweeri at ak lu topp nga xam ne at mu ne mu yebal waa këram sëñ Modou Lo daan ko teewe ba tey yàlla def mu doon kilifa dëkk ba nekk ci kanamu njaboot gi di yebal sëñ Jili Caam mi di rakkam bokk ak moom lépp ñu bokk moom lépp ndaxte ki ñu bokk kenn la muy sëñ Moor di gërëm bu baax Alaaji Mbakke seen mii nga xam ni ku ko gis ku ne ku ko xàmmee ku ne kuma xam ku ne dinga ko xàmmee ndax mii ngéen fu ma ne ci barab yu mel nii wala xew yu mel nii buñ ma gisee gis ko muy ànd boo xam ne bii yàgg na lool ñuy ñaan yàlla yàlla na sax te yàlla mi nga xam ni mooy barkeel mu dugal ci barke ba mu law ci njaboot gi ñoom it ñu koy sàmm di ko sàmm ba ñoom it jox ko seenu njaboot yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal ñuy sant nag cant goo xam ni amul ab di borom bés bi di borom dëkk bi way juru sëñ Jili Caam mi nga xam ni sëñ Maxtaar Bintaloo mooy sëriñam da ko woo benn bés ni ko Maxtaar demal ci fere yi nee leen ñu sant yàlla nee na sëñ Maxtaar dem dikk mu ni ko wax nga leen ko mu ni ko waa mu ni ko lu ñu wax mu ni ko ah, Mbakke ñoom de nee na am na keneen ku ñuy sant nee na sëriñ bi ànd ak tàngoor lool daal di ni ko taar ma ni leen ñu sant yàlla ñuy am kenn ku ñu ciy teg dem leen di leen ñu sant yàlla. sëñ Matar dem dellu si mu laaj ko mu ne fa mu naajoon fa mu nekkoon mu ni ko Maxtaar mu ne ah mu ni ko wax nañu dëgg ndax sant ma sant yàlla la ci ko xam yàlla ñun nag sëñ Tuubaa la ñuy sant. ndaxte lii de ku ne xam na ni du neen te am na njariñ ki la ci xiir boole la ci nanga ko sant ndaxte yàlla moo jëkk a tegtal ni ku santul nit doo ma sant wala boo ma santee du ma bëgg sëñ Tuubaa moomu nag nga xam ni moo dëgmal yàlla sëñ tubaa benn jublu la am benn yitte la am mooy yàlla ba yegg ci yàlla eggin woo xam ne nee na ku la ni egg na ci yàlla na ma egg ca yàlla nee ko waxul dëgg ak ku mënti doon musula boole yàlla ak dara musula nége mbiru yàlla dara du ci yitteem du ci jëmmam du ku mu njaboote ndaxte moo ko wax nafsi la wax wa awlaadi dafa ni nafsi wa diini wa awlaadi fi daawu lahu nee na tamit jël na deretam dammi wa awlaadi wa diini wa awlaadi def nee na fi daawu la woo defal na ko ay ay yooni yoon la wax ni jël na deretam ni ko soxodaaw yi daan defe ak ci njabootam ak i ñoonam yëpp def ko muy njot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom genn yitte rek la amoon yitte ji mu amoon mooy yéene yàlla ñii mu bind ñépp yàlla yërëm leen loola nag yërmande yàlla bu fekkee ni nit ki da koy wutal boppam individuellement yàlla mayewul saraxewul day jaay te ku am njëg boo jëndee mu lew la kenn rek a mësa jóg ni yàlla jaam yi nga bind te yemut fenn nag ñi ko jiitu ak ñi mu fekke ak ñi nga xam ni ñii moo leen jiitu am benn pas-pas bu réy boo xam ne bii nit mësu koo am ca maam aadama ba tey mooy lan mooy yàlla ñi nga bind bari nañu yaa leen binde ci ñi nga leen binde bari nañuy tooñ te yaa gën ci ñoom yaa leen bind yaa leen yor yaa leen di wërsëgale waxul jullit yi de waxul murit yi waxul ñi weddi yàlla te bari lool ndax ñi gëm yàlla ñoo gën a néew ñi ko ñi ko ñi ko won ginnaaw yàlla mi nga xam ni moo bind nit ñi te di leen wër wërsëgal nit ñi mën a tooñ lool sëñ Tuubaa am fit ak yitte ak pas-pas ju toll ni ca maam aadama ba tey nga xam ne kenn xamul ñaata milliards yi nit la yàlla bind nit ñaa ngi nit ñaa ngi juddu di dee rek ñuy gas di suul bu yàggul ñiy xayma recensement mondial nee nañu jamono jii ñu nekk juróom-ñetti milliards yi nit ñoo ngi ci kaw suuf te juróom-ñetti milliards yi kat fu ñu doxatee téeméeri juróom-ñetti milliards yëpp dinañ dee nekk ci kaw suuf te bu boobaa kat juróom-ñetti milliards yii nga xam ne tey jii nii la ñu toll bu ñu doxatee téeméeri jombul dina doon ñaar fukki milliards yu nekk ci kaw suuf. Sénégal bu yàggul 1960 rek bi ñuy nekkee école 2 millions lañ doon wax 300 000 habitants léegi ñoo ngi ci 18 millions kon 7 milliards yooyu bu ñu doxatee téeméeri dina mat ñaar fukki milliards. xool leen nag maam aadamaak léegi ñaata centaine de milliards yi nit la fi yàlla bind ñu dee dem barsax kenn xamagul kañ la àddinay tukki li ko tale tey ba yàlla di tukkal àddina ñaata milliards yi doom aadama la fi yàlla bind ñu nekk ci kaw suuf kenn ku wéetal yàlla xam kàttanu yàlla ji ak doole ji xam yàlla ndaxte lii muy ñaan yàlla ku amul cir ci yàlla nekkoo ci proximité yàlla yàlla mayu ko ci sa boppam sañuloo koo ñaan la ngay wax yàlla yërëm ma rek koo ca amee loo koo ciy teg dangay wax sama ñaari wayju waaye yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadin irham jami al wara mu dugal nit ñi dugal jinne yi dugal rabu àll yi dugal yi naaw dugal ñi nekk ci géej gi ni yàlla yërëmal ñépp kooko la mu nekk ca yàlla ak la ko yàlla may ca boppam lu réy la kon war nañoo sant sëriñ Touba Serigne Touba nag bu leen ko xool ci tarixa de newu ci xaju fa lii mu woote ni dama woo ñi yàlla bind ànd ak ñoom ngir ñu dem ca yàlla muridullaahi la bu ci kenn bi génn boppam ndaxte kat làmmiñ dina lor borom làmmiñ te ca moom lay jóge yenn saa yi ngay dégg ku ni duma murit ëpp naa wax ku dul murit booy dee di dem safara yàlla muridullaahi la wax ñi namm ñëw ci moom leneen li ñu baax a fi ñëw di wut yàlla ba yàlla may leen ci boppam cër bu rëy ñu tuddee seen yoon woowu seen bopp bu dee xaadir Cheikh na Ahmadul Xaadir Jeylaani moo ko sas ñu ni xaadir yi bu dee Tidiane ñu ni Cheikh na Ahmadou Tidiane Abul Abbas moo ko sos ñu ni Tidiane yi bu dee zalzali yi wala dabaxu yi wala anifa yi wala nasbaxit san yi ñooñu ñëpp ña sos yoon wi ñoo tuddee yoon wi seen bopp Serigne Touba moo ñëw ni muridullahi képp ku namm jëm ci yàlla ñëwal ñu dem ma yóbbu la ci yàlla kon erreur la nit di wax ni du murid bu ko kenn waxati ku dul murit booy dee di dem safara yàlla murit rek la soxla murit mooy ku namm jëm ci yàlla moom la sëriñ bi woote yàlla nag daal di ni képp sëriñ Tuubaa ni képp kuy murit bu ëllëgee sa xar kanam dina leer nàññ ba ñu xàmmee kiy dem àjjana ak ki dul dem safara yàlla nañ ci yàlla boole wuy gi ngeen wuy si sëriñ Tuubaa woon na ne yéen yéen a ngi foofa na fexe ba ñëpp ne ci lu baax lu baax yombul te lu baax moo ñu fi indi bu ëllëgee ku amul lu baax dinga nga réccu loo doon ñëwee fii bu ëllëgee ku amul ku baax wala àndaloo ku baax di nga réccu loo doon ñëwee ci ci ci suufu suñu borom si nit nag moo mën a dugg ci parparloo ba bu ñaar di ñaari ginaar di xeex fokk sa bët dem ci genn ginaar da ngay wax ni géedee man bu dee gone yuy fo sax di nga am koo faral waaye loolu nit da koy dépassé te àddina li am solo fa ñu jëm li am solo mooy egg yàlla nañu egg fii bëgg fi neex yàlla ndaxte fa la ñu jëm amul yi tur amul yi sant amul ndey amul baay amul dara xam nga lu fa am jaam ak boroom bu tiimi jaamam di leen atte bu boobaa nag nañ fexe ba bu ñuy dem ñu yóbbaale ngërëmul yàlla ak sa yërmande suñu borom ngërëmul yàlla ku ko yóbbaalewul fële di nga récc loo doon juddoo li ci des lépp nag ay yoon la te gis nga na mu ko waxee ca mbaaxam nga muy yoonu xaadir di yoonu tijaan di weneen ni yoon ak yeneen i yoon yi ñu xamul ndaxte dañoo jàpp ni turux yi nga xam ne am na li ci gën a siiw ci réew mi mooy murit ak tijaan ak xaadir waaye yoon yi jëm ci yàlla toll na ni joom jaamu yàlla yi waaye boo ko boolee ñoom seen ñëpp nag ñooñu ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne linkee nañu takk nañu ci génn buum dëgmal jëm ci yàlla yàlla nañu egg te egg rek am solo ñoo ngi koy sant ndax ki la defal lii te mënuloo ko sa bopp nañ ko sant Sëriñ Tuubaa nañ ko sant ndaxte day bés bii nga xam ni suñu bés la ñun ñi nga xam ni ay suudaane lañu mooy nit ñu ñuul ñi mësuñu ñoo boole ci dara ndaxte histoire lu bari binduñu ko waaye yàlla baaxe ñu koo xam ni am na ci yàlla nàdd na ci suñu borom loo xam ni ëpp nañu ñun nit ñi loolu bon tawféex jooju nañ ko sant suñu borom bu ñu santee yàlla ba pare wëlbati ko sant Serigne Touba yàlla mooy defe noonu yonent bi magul ci yonent yi ci zaayir nee nañu moo mujj moo mujj ñëw te nee nañu moo gën ñëpp moo tax yàlla bind ñëpp yàlla ma mënoon loolu defal ko yonent yàlla Muhammad muy njiitu yonent yi mën na koo def kii nga xam ne bawol gii la dëkk te boo doon xool ci carte yaa cent ans doo gis fu ñu marqué bawol mu jiitu ñu baax ñi jiitu wàññiwul dara di nga jiitu am na ñoo xam ne bu ñu jiitoo ku topp ci seen ginnaaw ku baax nga waaye jiitu moom mënut ñàkk sëriñ Tuubaa nag ni laxat sabaxta yàlla jiital na ma te kat li mu wax nee na umpul ñi am bashiratul xalb ak ñi nga xam ne yàlla am na lu mu leen booleel nee na képp koo xam ne am nga benn toq ci sa boroom nga xam ni dañ nga kumpa dañ nga réer yàlla defal na ko xam nga ni Ahmadu mii yàlla jiital na ko jiital googu nag bu ñu ko bàyyee muy mbiru biir te mënuñu ko firi ñu ñëw ci li nga xam ni moom la ñu gis te ay doom aadama lañu ñu doon cartésien mën a analyser dëkk boo xam ni bañ ko soseeg léegi matagul téeméeri at ak juróom fukk nekk dëkk bi gën a xumb ëppi nit la deuxième ville amuli usine amuli société amuli dara mel nii dàq fépp gën fépp leeruk sorom borom ne fi at mu ne juróomi million di fi daje te kenn forcé wul kenn kuy ñëw yaay indi sa bopp yaay indi li ngay terale say gan wala nga indi fa ngay dal loo xam ne lii da nga leen koy jox muy sa hadiya te at mu ne mu yokk ku defe ni yëfi neen la xamoo li xew yàlla lu mu barkeel muy yokk nit ñi léegi néeg bu ñu climatisé la ñuy laaj ndox mi ñëwul boo indee ndax ñu ne ndox mu sedd boo indee ñu ne bugguma ceeb dibi laa bëgg te tolloon na jamono joo xam ni fii man seetlu naa ci jumaa ji ak samay waajur tawte te kat fii mu nekk nii ak fa mu jëm dafa mel ni ba bëccëg dina dem ba doon genn gu yuux loolu mooy ndimbalu yàlla lu yàlla barkeel yàlla bu mu ñu umb maa ngi leen di gërëm di leen sant boo leen demee nuyul leen ma sama nijaay sëñ maam Abdou ñu koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal alaaji cooy boo demee nuyul ma sama nijaay àll ak waa kër ga ne leen lii ngeen di def moo leen war ndax ñoo ci bokk yem ndax dëkk boobu tudd Andoulaye suñu maam ak seen maam rek a àndoon ba sanc ko te booba dafa daw dañu doon daw buur yeeg li ci li ci loxol buur yi di wuti yàlla Sëriñ Tuubaa nee na Cheikh Mouhamad Lamine Dramé bi ma ñëwee ci toolu yàlla bi benn jëwriñ laa fi fekk bu mat jëwriñ mooy Cheikh Mouhamad lamin Dramé kooko nag ña dëkk ak moom dese nañoo am lu ñu xam ci moom ndaxte kooku moom ci góor yàlla ya doon góor yàlla te matal ko te xam ko ca la bokk boo leen fa jógee nag ñëw fii dafa mel ni nga nekk ci génn kër gi dugg génn ci néeg bi dugg ci néeg bële loolu mooy seen tànk yi boo leen ñëwee noonu la demee boo leen ñëwul maa ngi fi te la ngeen fa am cala la ca laa fa am ndax maam yi rek a àndoon jóge mbul ñii jóge saalum daje jaayante waxante kii wax ak moom mu nungul ko ñu ànd di wut yàlla ba tey jii ngeen nekk fa fekk fa samp fa ñu nekk fa di fa yëkkati baatub laa ilaha illallah di fa dundal lislaam loolu mooy la nga xam ni moo ñu boole nit nag bu fekkee ne la leen boole lu ne fekkewu ko buum ga leen takk xamut fu mu jóge nii rek la war a mën a demee li ku ci nekk la nga la la war nga ne ci te nit bu nekkee ci li mu war wàcc dañu ni boo nee ci li nga war li la war mucc ci li la wër kon yéen di leen gërëm ak di leen wax nangam ak nangam li ngi leen war rek ngeen def ndaxte ña nga xam ne ñooy kilifa yi sancoon dëkk ba nga xam ne suñu maam ju baax jooju di maam Thierno ki ko fi jëkk a wut sama nijaay Abdoul Aziz li ngeen di def moo ko jëkk a def wax na ma waxi biir yu sori yoo xam ne yi di waxi mbooloo ndax yàlla daf ma xiiroon ci moom ba pare mu bëgg ma ak ñi topp ci moom ñépp ba ci maam ab Abdou mii dañoo xam ni man ak ñoom benn lañu ñoo bokk lépp la ñu bokk mooy pas-pas ba ñu amoon mag ña ànd ak ñoom di wut yàlla ba am yàlla koo dem ca ëtt booba da nga xam ni boo fa duggee rek di nga xam ni fii yàllaa ngi fi loolu nag moo leen boole woon loola nag di leen boole ba sëriñ bi ñëw bi muy dem suñu maam ju baax jooju Cheikh Mohamed Lamine ñëpp a ngi fi woon waaye sëriñ Touba rek la jël ay mandarga jox ko yebal ndaw jox ko ko mu dem fekk ko xamaak bi mu ko xoolee la tudd yàlla ni ana Mouhamadou Lamine mu ni ko ma nga fa mu ni ko xam nga lu mu wund ci lii mu ni ko déedéet mu ni day tàggoo neena dem na te ka mu yebal suñu maam ba muy dem ba mu ko bàyyee ma nga ni dara jotu ko ba ba mu demee ca ginnaawam la fekk ñu ko kon kooka amoon naag borom dëkk bi kóllëre am nañu am nañu ak ànduk baatin goo xam ne la leen boole ñoom ñoo ko xam kon loola boo leen doxee tànk yooyu ñëw fii nangeen ngeen jàpp ni yéen a ngi ci li leen war dëgg nag ndaxte bi muy dem ñëpp a ngi fi waaye kii rek la dénk la mu koy dénk jëli téere jox ko ni ko lii maa ko moom samay téere la boo ko yittewoo jël ko boo gisee lu bokk ci moom te yittewoo ko jox ko ca seen maam jóge ndakaaru di wur téere ba ñëw njaareem Serigne Touba mu baax yi yebale ca gaar ba ñu dem teeru ji maam Cerno ba indi ko ci moom keroog ba mu ko joxee gaal yi am ñaari téere yu mu teggi teg ko mu di ko xool di ko xool mu ni ko xanaa sa xel daa yem nekk ca lee mu ni ko bu ma ci mënoon a jot de jël ko mu daal di ko koy jox ni ko faf koo jël mu nekk ci borom xam-xam ubbi di xool lu mu ubbi mu weex tàll ni sama mbubb mi mu ni ko faa defe ne woon de am mbind la waaye ndekete du du ay téere lu ñu bindul la mu ne ko ah añ bind nañ ci waaye ku dul Mouhamadou Lamine du nun nii mu xamoo liñ ci bind mu delloo ko téere yi sama nijaay Aziz sama ko wax kon bon lii lu jaadu la lu yam la loolu nag mooy ndamul lislaam ndamul lislaam loolu nag yàlla bu mu ñu umb comme tisbaar waxtu wi paase na sax ñu waajal ko julli ko te ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee déwén ñuy gërëm ñëpp nag وبالإسلام فلتم